ay sàcc laa la wax nag yu mel ne Youssou Ndour fayal impôt yi fayal impôt sénégalais yi Youssou Ndour Youssou Ndour dem naa ba sa kër man maa dem ba sa kër gi nga dëkk tey ma tuddal la ko sa kër sagal la pour la dernière fois xolal Macky Sall moomu ko kër googu danga nga koo war a génn maa yéeg ci kaw garab xolal ba xool ni kër gi bindoo ma wàcc dem yéeg ci kaw groupe électrogène bi ba xam ni kër gi bindoo kër gi moomu loo ko nduura waali mbergaan génnal. parce que ku mere Macky Sall mën nga ko mere ci leneen ku mere Youssou Ndour mën nga ko mere ci leneen waaw mais ñooñu man man li tax ma ne par exemple un un gars comme Youssou Ndour. mënuma ko condamner parce que man du ma xool nit ci benn ci benn durée rek mais Youssou Ndour lu bon bon def na 35 ans de carrière avant muy def politique. defe naa Youssou Ndour kenn man de mosuma dégg lu bon lu ñu daan wax ci moom wala bu dee dafa amoon ay ennemis avant muy def politique Youssou Ndour man mosuma dégg critique yu bari bëri bëri bëri bëri boobu ay ambassadeur UNICEF yoo xam ne mosuñoo tabax centre UNICEF biir Sénégal ay nangukatu xaalisu malaria yoo xamante ni mosuñoo tabax centre malaria ci biir Sénégal séddoo ndey xaalisu sénégalais yi pare di woote ay patron Dakar ay ñoo yor opinion réew mi ngir yàlla bàyyil Waly Seck ak yeneen xale yi nekk ci àdduna bi ak Papa Thione Seck ak gone yi doo ko juddu nga xam ne yéen may wax ngeen naan petit gàlle les petits triants sénégalais petit gàlle sàcc xal alalu xale yi ndaw kuy sàcc ponkal yi ba egsi ci xale yi doo ko juddu nga war leen faa mën a bàyyi xam waaw léegi année yooyu yëpp nga xam ne daf ñu daan bégal loolu yëpp dañ ko nar a effacé ah déedéet bu dee nag dugg na ci politique ñu bëri di def ay erreur nii nga naan def na lii def na laa def na laa mais nit boo koy xool da nga koy xool ci globalité bi da nga koy xool ci glo man loolaa man de loolaay xoolee nit xool ci globalité damay xool ne am nekk na ambassadeur pendant longtemps gagné na disque d'or pour Sénégal comprendre yàgg nañu bëggal nii ba mais Assane Diouf mii di critiquer Youssou Ndour moom ci boppam famille euh, euh, am na benn reportage boo xam ne ay xaritam si koñom nee nañ moom Youssou Ndour rek la daal nooyee Youssou Ndour moom ci boppam wax na ko liggéey naa Youssou Ndour liggéey naa Pape Diouf waaw ki nag doo xool ne tooñ na la benn yoon man xaw ma ndax tooñ Youssou Ndour daf leen tooñ xaw ma ndax Youssou Ndour daf ko tooñ wala tooñu ko mais nit ki boo koy xool boo xool da ngay xool globalité. mais di dajale xale yi di daggaloo nit ñi ay billets naan petit gàlle di sàcc xaalisu gone yi. gor gore ay jaam ngeen Ibrahima Ndour yow laay waxal jaam nga sàcc nga ak yow Ngoné Ndour <laughs> ah moom bi ngeen indee Assane Diouf Sénégal ngeen gën a am problème parce que waa ji waa la toog xolal fa balu fetal yi tàkkee ne leen addiyee Serigne Touba. waaw ah, man man loolu laa gis ku nekk nag boo defee loo warul def. nga jël xaalis boo war a jël sa jour dina ñëw man noonu laa ko gisee nañu bàyyi lépp ci loxo yàlla.